Pathé Mbodj maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay soxna si. Pathé Mbodj nga nekk analyste politique d'abord naka nga xalaate religieux yi nga xam ne ah, dañuy faral di def politique fii ci Sénégal est-ce que lu ni mel ci ah, sa xalaat normal na waaw wala déet. dafa naa ñun ñoo xamul fu ñu nekk ak fu ñu taxaw ak fu ñuy teg suñu tànk bu ñuy werante ndax nitu diine. mën na nekk politique parce que nitu diine bu defoon politique Sénégal dana gën a metti Afrique si boppam dana gën metti ndax boo seetloo fépp si eh, réew Afrique bi ku si nekk gis nañ fa nitu diine bu jóg taxaw ngir aar askan bi eh, Samori muy Hamala Mali Sëñ Touba Sénégal El Omar Mouhamadou Lamine ñooñ ñëpp seen taxawaay boo ko seetee tey moo doon taxawaay euh, wutu taxawu askan bi kon nag loolu mooy politique seen loolu moo doon seen euh, taxawaay loolu lañu xalaat xalaatoon ni loolu la ñu war a def loolu la ñu def Mhm. ba ñu egsi fii nag ñu ñu woon bokk defe dañuy xaw a mhm. kon daa jàpp nga ne la normal la lan la la par exemple Serigne Moustapha Sy di inspiré religieux buy def politique par exemple bokk ci euh, famille El Hadj Malick Sy bu Tivaouane euh, lan la la inspiré en fait. waaw bu boo si Tivaouane day mel ni rek mooy euh, fu ñuy defee. mbirum diine di indi si politique mbirum diine si politique da ngay boo si génne Cheikh Amadou Bamba amatoo ndax Cheikh Amadou Bamba li mu daj yëpp ndax nit ku ñuul la woon ndax der bu ñuul la woon ak liggéey ak yàlla ndax le nitu diine aaree si àddina euh, daf la war a aar tamit si àllaaxira loolu mooy euh, li am loo xam ne ni politique bi mun na la may alal politique bi mun na la tàggoo jox la ndombol daal mais du la yóbbu àjjana waaye bu fekkee ni am nga sëriñ yaakaar nga allo hmm. allo waaw oui allez-y loolu mooy borom diine te boo boo ko génnee amatuñu diine amatuñu diine amatuñu politique parce que lépp li taxaw ñett lañu muy eh, borom ndombo tànk borom diine ak euh, citoyen ñett ñooñu ñoo nekk fii ñett ñooñu ñooy ñooy xeexandoo xeex ak euh, nguur di xeex pour seen diine di xeex pour seen bopp loolu mooy politique léegi euh, léegi homme politique bi religieux bi nga xamante ni dafay def euh, politique par exemple est-ce que kooku mën na bañ euh, yeneen way politique am di ko attaquer comme ni muy at comme niñ koy defee rek ci langue politique bi. waaw xam nga diine dafay loo xam ne dafa xaw sew te boo si duggee ci yenn yi rek dafay indi ay tolof tolof. muy tolof tolof si diggante nit ñi muy tolof tolof si eh, réew mi gis ngeen ñu naan leen ah, Bambaay Maodo ah, Maodoy Bamba ku la di féewale juum nga eh, loolu mooy si diggante kër yi léegi bu diggante kër yi nag ay taalibe ñoo fa nekk bu fekkee taalibe yi jubawuñu seen biir dañuy indi tolof tolof si ñoo xam ne ñoo bokk parce que boo seetee Bamba wasete Maodo wasete seeni jaar-jaar wasete seeni waajur ba bi ñuy agsi ba fii xam ne li ñu moo ëpp li ñu sequ te loolu weesu na diine ndax deret la kon nag loolu bu amee ba pare e, ku di taxaw naan boo waxee ni tey fanaan ni àlaaxira kooku da nga xamul daal e, ku la di jéem a féewale daal bokkul bu fekkee ni sëriñu diine bi tamit dafa taxaw luy Macky Sall di tooñee mara bu marabu politicien bu politicien ma nga woo Touba euh, famille religieuse bu nekk d'ailleurs ñu ngi jéem a seet ndax la ñu leen mën a euh, boole ci mbir yi ndax si lañu bokk seen i yëf la kon euh, nekk politique nekk këru diine dafa nekk loo xam ne ni si suñu aada la bokk daal. Mm. mais naka la ko euh, homme religieux bi mën a gérer bu baax ba ba du yàq dara euh, gérer casquettu euh, politique am ba mu mët sëkk ak gérer tamit casquettu religieuse ba mu mët sëkk ba daal dara du gêner moroom ma naka la ko homme politique bi war a defee pour yow loolu moom nag dafa nekk si loo xam ne ni mbirum nit la parce man mi sama bopp mun naa xër xër boo xamee ni si nit ba mu jaral ma lu nekk dafa naa xuloo bi woon assemblée sax noonu la woon dañu leen bu leen diw bi jaralee lii ñu tamit diw bi jaral nañu lii loolu nag du Serigne euh, Moustapha moo wax du bu fekkee ni euh, makki Sall euh, moo moomoon kàddu gi du Macky Sall moo wax dafa am ñu nekk seen diggante ñooñu nag ñoo jéem a xam naka la ñu xam waaye bu fekkee ci biir assemblée bii la bu fekkee ni si jamono ji ñu toll bi nga xam ne ni am na yaakaar yu bare eh, ci benn côté mu tas am na yaakaar bu bare ci ni li fi nekk mën nañ koo soppi si lu gaaw a gaaw euh, xuloo gi day gën a bare rek pënd bi day gën a bare rek waaye du wuuri léegi léegi euh, ñu wax ci li am assemblée nationale ñu gis ni Aminata euh, Amy Ndiaye Gniby plutôt euh, nekk député boo xam ni daf doon yëkkati ay kàddu teg ko ci Serigne Moustapha Sy après ñu teg si ñaari député yoo xam ne ñu ngi bokk ci parti PUR ñëw attaqué ko dóor ko dóor yu métti mu nekk scandale bu am foofu ci assemblée nationale ban jàngat nga ci am parce que coow li bari na trop. xam nga li ñu daan wax ci waxu àddina mooy Sénégal xamuñu ku tooñ ku fayu la xam euh, tooñ bi nu mënti demee kenn mënul jël sa bopp ni eh, man maa defaral sama bopp yoon sama yoonu bopp kenn amul yoonu boppam bu fekkee ni dafa am ku wax wax bi dañ koy dégg waaye jëf bi dañ koy gis te am na lu mu jur mooy euh, fii Amy Ndiaye ñi bi toll tey jii si kër docteur wax ji bu fekkee ne am na buñ ko déggee tamit li ñu gis moo gën a ñaaw li ñu gis assemblée ba premier décembre loolu dafa ëpp dayoo nit ki ëpp génn keneen yow dugg si wax ko loolu moom ëpp na dayoo te waruñu ko nangu boobu ba léegi eh, boo seetloo xam ni ñoom seen bopp euh, def nañu lu ëpp loo xam ne ni euh, lu bare mun na leen ci fekk kon nag bu fekkee ni sëñ Moustapha moom ma nga toog fële moom mi moom moon wax ji euh, deful dara waxul dara ñeneen ñeneen ñi si dugg rek ñooy am tolof tolof ak yoon mais sëñ Moustapha moom amu si amu si tolof tolof waaye loolu moom il faut dañ koy ñaawlu nag dañ koy ñaawlu te il faut ñu faj fi nag mooy fi mbaxana doone benn ci mhm. prestation yi ca assemblée nationale député yi gis nga euh, li ñu nekkee ci assemblée bi est-ce que euh, wala sax ci naka la njiitu assemblée Amadou Mame Diop mën a canaliser député yu quatorzième législature bi xam nga dañu nekk di si jamono joo xam ne ni nit ñi dégg dafa xaw a jafañ parce que amatuñu nopp amatuñu xel euh, surtout bu fekkee ne dañuy def ay nitu politique lañu fi mu nekk si ñoom déggatuñu dara xamatuñu dara ndax dañu nekk si loo xam ne daf leen xaw a ëpp doole li mu leen ëpp doole mooy ñuy yaakaar nañ ni Eh, mënoon nañu dindi nguur gi fi mu nekk eh, yaakaar boobu tas na ndax dindi wuñ leen fi ñii yaakaaroon nañ ni mënoon nañu duma ñële ba eh, ñu xam ni ñoo leen mën duma boobu amul ñu nekk ci diggante dund ak dee diggante dund ak dee mooy foo xam ne kenn ëppalewul kenn kon nag kenn mënul wax kenn mu dégg kenn mënul taxaw kenn bu dégg euh, loolu nag bu amee day indi tolof tolof dañ koy mën a dindee lañu mën a seet dañ koy mën a dindee eh, ñu waxtaan seen biir ba déggoo nuñ ko defee woon ñu soog a tëral assemblée bi te kenn du déggoo ñu mel ni ku nekk di xaxar sa morom ñu ko mën a déggee bu fekkee dem nañu ba si toll nii ndax bakkan mun nga si wax ñu jéem a seet beneen solution beneen solution boobu nag nguur gi. confrontation Adji Sarr Sonko ñu amal ko ci 6 décembre euh, bile euh, ci dossier Sweet Beauté euh, coow li bari loo xalaat ci confrontation bi diggante aji Sarr ak Sonko. xam nga day day yoon dafa am lu mu tëral li mu tëral mooy ku ni man la sax maa def tolof tolof boobu si bërëb bërëb danañ la yóbbu si bërëb boobu nga wone naka nga ko defee. tey jii dafa fekk kii dafa ñaar ñu jote si wax ndax kii nee na kii def na ma kii nee na ma muy koy jéem seet nag eh, xanaa jéem a taxaw ku nekk taxaw daal jàkkaarloo eh, wax sa morom lu mu ko defee ak lu mu ko def loolu moom def naa yoon moo ko laaj ci yoon lañ eh, ko doxal moom lu ñuy doxal tey jii Mhm. mooy comme mbiru Pape bi tamit nee nañu fii ak àjjuma. waaw dana euh, taxaw ci kanamu fi euh, mbaxana doon benn ñu laaj ko. Mhm. lu mu def ak foofu lu mu wax. loolu moom euh, yoon moo ko laaj daal. pour deux mille vingt quatre am na candidature yu bari yoo xam ne commencé na wàcc gis nañ bu Ousmane Sonko xalifa Sall Malick Gakou ñeneen ak ñeneen loo si xalaat déjà te deux mille vingt quatre. <laughs> xam nga. Mhm. buñ ne làmba ji sàjj na ku ku ku am na nuñ ko daan wooyee làmba ji sàjj na làmba ji deux mille vingt quatre lay sàjj ah da dañ doon wax ku doon na mbër sa ngoro ñëw léegi ku nekk yaakaar na ni mbër nga samp sa ndënd loolu moo mos am ci Sénégal moo mos am ci bu jongante di am moo mos a am ci suñu démocratie ku nekk war na mën a taxaw ni man mbër laa waaye man de bu ma bu ma doon mbër bu ma doon seetaani ay mbër si làmba ji eh, bu ñëwee Modou Lo ak yaawu jaare ñooy bëre dinaa xam ku ma mën a faral ku nekk xam nga ku la mën bu boobaa dina leer ku nekk mën na samp dënd yow sax mën nga samp sa dënd man mën naa samp sama dënd. <laughs> waaw ku ne war ngaa mën a bu fekkee ni mm. yoon may am na lu ñu war bu boobaa ñu samp bu boobaa nga samp ma samp ñu seet naa yow ku mën. voilà ñu gis ni nag ba léegi Macky Sall moom euh, euh, fësalul leeralul ndegam moom dina bokk 2024 waaw wala déet même bu fekkente ni ñu bari gis nañ ni jéego yu ñu teg foofu la jëm loolu si xam loolu tamit defe waxu ko daal saret la am na ku nekk si nguur gi hmm. ku samp ndënd 2024 xam nga ni bu boobaa nguuram moom dana jeex ndax dafay ñëw wala du ñëwaat loolu moom mooy comme li ñuy wax si aji saara ak kii rek ndax li am na wala li amul am na ñu koy waxtaane tey jii nii fi ñu toll nii. Mhm. ndax Macky dana ñëw wala du ñëw wax na la bu la waaw ñu ni eh, kenn dootul liggéey bu ne déet bu ne kenn dootul liggéey moom am na mandaam mandaam mi ngi jeex eh, deux mille vingt quatre nañu mandu rek toog ba deux mille vingt quatre ñu sell voilà. Pathé Mbodj euh, maa ngi lay jaajëfal. maa lay jaajëfal soxna Moreau. voilà may fàttali ni analyste politique nga. jërëjëf.